Abdou Khadre Ndiaye maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi lay fay nga nekk expert en géopolitique et en relations internationales déjà malay lay euh, laaj ban analyse ngay def ci situation bi réew mi di traversé actuellement. waaw il faut ñu xam ne aussi euh, li fi xew ci Sénégal peut-être que deux ans ay manifestations di fi manifestation bi est il faut ñu xam ne aussi. Euh, li nga xam ne si nit dañoo xëy rek ne dañ koy def taal wala ñu yàq ci dañoo sanctionné nit wala dañoo bëgg a écarté ci élection wala yu demee noonu man loolu duma ma ci mën a d'accord ci lu bari parce que état dafa am lu ñu doxee état bu fekkee ne dañoo wax ne nit ki bu bëggee manifester wu constitution bi certes moo ko permettre mais manifestation bi da cee war a discuter ak autorité bi pour ñu am entente ba nga xam ne si sa droit bi nga bëgg exercer doo torpiller droit keneen doo yàq keneen sa lam nekk moo xam muy jënd muy jaay wala muy taaba taaba di dépense wala mu def leneen mais li ñu gis mooy ay nit ñoo xam ne dañuy yàq te dañuy yàq teguñu ko fenn parce que tamit ñu ñu yàqal duñu état ay privé la ñoo xam ne ñoom moom seen alal ñoo ñëw investir jël ay nit ñuy liggéey ñu jël ay Sénégal duñu ay ñeneen ak ñeneen ñu nekk au champ fu mu ci man di doon ay Sénégal lañ doon ñu ci am seen njëriñ bu ñu yàqee loolu après mën nañoo def euh, xool nu ñu organiser seen i affaire dàq ay nit licenciement pour des motifs économiques te boobaa dañuy wax ñooñu parce que ñun ay famille lañ bokk ci ay nit di dundal ay nit di di di weer ay ay nit donc loolu du lu may rafetlu mais li ko waral rek nag mooy ndaxte Ousmane Sonko dañ ko woo mu am ku mu joteel koo xam ne citoyen Sénégal la muy Adji Sarr dafa am ay droit parce que. dama leen fàttali principe bi nga xam ne mooy régir état de droit mooy principe d'égalité des citoyens devant la loi maanaam ñun ñëpp ñu yem ca wàllu yoon maanaam man am naa droit dem porte plainte nit su ma ko porte plainte nit ki bootu toog fan toog naan defuma fan ko porte plainte fa lay dem wane ne moom deful ki ko porte plainte tamit acteur yi incombe probation la charge de la preuve incombe au demandeur à moins que ñu la preuve maanaam yow mi nga xam ne maa la yóbbu ne la yaa def suñu ay preuve yi war su fekkee ne am nga preuve yi wala juste sikki sàkk na ci say wax damay damay bénéficier ce qu'on appelle le doute parce que le doute profite à l'accusé maa Ousmane Sonko bu demoon procès tey la ñuy wax ñu am nañ ci laam-laamee dañ koy bàyyi mu ñibbi këram mu mel ne mës a def dara parce que présomption d'innocence day continuer dañu jàpp li ngay tuumal defoo ko bu ba nga dañu waneen lu koy def loolu mooy principe d'innocence donc kon man wërta mën a jël ay xale wala ay xale ñu moom ci boppam moo ñu waroon ne bu kenn génn sa kër balal ma ma dem defuma dara dinaa loolu ne defuma dara loolu su ko defoon day gañe ñaari yoon day gañe setal deram bu pare gañe ci wàllu côté politique waaye nag loolu amut parce que xale yi am na ci ñoo xam ne man li ma gis ci manifestation yi ci ëpp buñ matee dix cinq yi wala moitié yi presque ñu am moins de vingt ans lañ cest à ñoo xam ne amaguñ expérience parce que am vingt ans am moins de vingt expérience amaguñ ko maanaam euh, c'est des gens yoo xam ne mën wax sax loo xam ne xamuñu lan parce que nit ba nga dugg ci dara da nga koy xam parce que tey justice euh, man li ma gëm mooy képp koo xam ne si nit dana am dëgg bu ñu la joxul dëgg tôt ou tard ci nit day kalaati parce que olof ñaareel lu dëgg du yàgg lu yàgg dëgg la. Mhm. Euh, d'accord Abdou Khadre ma laaj la leneen euh, ak dossier wu viol diffamation euh, yi nekk ci ndoddu leaderu Pastef ban avenir politique la am naka nga gisee avenir u politique bu Ousmane Sonko avec dossier viol bu Adji Sarr diffamation bu Mame Mbaye Niang bi ñu ko condamné récemment xam nga dafa am lu mu bëgg a leeral tuuti avant ma agsi ci loolu xam nga ñu dañoo jaale deux cas de figure xam nga affaire u euh, infraction dañ leen classifié il y a ce qu'on appelle les délits les contraventions et les crimes en matière par exemple correctionnelle comme li amoon moom ak lu mu tuumaale Mame Mbaye Niang bu ko neexee mu bañ a présenté wu bu présenté wul juge bi léeg-léeg jugement par défaut maanaam ñu juge ko te du ko fekk mais bu fekkee en matière criminelle la en principe présence ki ñu tuumaal c'est obligatoire moo tax nga dégg nga ñuy wax ordonnance de prise de corps bi moo koy jox force publique bi ñu dem exécuter ko buñ ko exécuter waa ji buñ defee li ñu war a def lépp gisuñu ko wala mu daw wala lu mën a am te dañ wax ne absente na bu absenté nag day perdre ay droit même avocat bi nga xam ne ñoo fa nekk sax dañ fay ñëw mais daanaka ñuy wàllu ak nit ki xaru ci kenn la ngay dem maanaam bu ñëwee ba ca pind ba fanaan maanaam seen musóor ak seen yuuxu yëpp mais duñ mën a àgg loolu moo tax ñu jugé la nga bañ ko fekk mu danger après même buñ la condamné doo am benn possibilité def appel parce que da ngay perdre say droit loolu mooy mooy mooy def. Mm. beneen bi aussi mooy buñ paree mandat bi ñu jël mënatoo dem ci benn réew parce que Sénégal day signé il faut ñu comprendre un état c'est du sérieux dafa am ay convention moyen juridique yu muy utilisé au niveau international convention ak coopération judiciaire yi muy def yoo xam ne foo génn da lay jàpp donc loolu te kuy politique mënoo làqatu parce que politique mënut a ni avenir politique Ousmane Sonko dépendre na ci procès yi parce que bu la condamné euh, automatiquement yow boo def nekk candidat candidature ku ko bëgg a nekk code électoral ci lay juge ci lay ju euh, conseil conseil appuyé pour man nga ne candidat wala mënoo ko ne même boo amee lépp trente cinq ans nga fay caution loolu noonu délit dañuy xool ba xam ne ndax mën nga am condamnation ban façon condamnation bu fekkoon ne condamnation boo xam ne si ne suuf si rek la te àggul fenn fi doo perdre sa droit mooy mooy ko jugement bi ñu ko jëkkoon def appel bi moo tax ñu ne ñu ko bi après bi mu aggravé peine moo tax ñu dégg ñu ne perte naa droit yenn avocat yi mais chambre criminelle moom c'est extrêmement grave parce que moom foofu bu ñu condamné moom crime la te crime boo xoolee article vingt neuf da ko réglé avant ñuy wax article L trente donc kon avenir Sonko mi ngi yi projet yi bu ci génnul te man pour man comme convoqué ngay bañ a dem mooy génn ci mooy bëri nga naan naan da nga fay nekk loolu d' accord euh, beneen laaj Abdou Khadre est ce que mën nañu wax ni coalition yeewu askan wi tas na tasar existé tul daal fi ñu toll nii tur bi daal moo fi des. gis nga am na loo xam ne nit dañ koo xamul ci coalition gis nga am na parti politique yoo xam ne un pour cent sax ko ñoom dana làqatu ci ay ginnaaw coalition donc sax xam na ne élection kenn mënatu koo gañ ci Afrique yi par benn parti politique parce que c' est l'affaire des partis politiques c' coalition ak ay mouvement de soutien ñoo man a gagner élection moo tax coalition parce que certes élection yi fi yëpp ils ont fait des percées spectaculaires yoo xam ne mais nag moment bi parti bu àndee soit parti bu ñuy dund wala mu dee wala parti ya fa ne ay intérêt commencé feeñ parce que nit ñi mën nañoo ànd ci ay euh, situation taxaw ñu ànd ñu mel ne ànd na mais bu ñu demee ay intérêt bi commencé génn ca ku nekk di commencé am na ñoo xam ne ñu ngi soutenir Ousmane Sonko moment bi nii peut-être dinañu arrangé mais du seen candidat wala bëgguñu mu ne président mais mënuñu ko wax mais parce que politique dafa am loo xam ne c'est officiel ak lu officieuse lu officieuse moo ëpp li officiel lu nëbbatu moo ëpp li feeñ parce que politique dafa bëri ay gàll gàllankoor bëri ay donc coalition Yewwi Askan Wi déjà am na déclaration yu euh, kii defoon keroog euh, Barthélémy Dias yoo xam ne day nuru ne kon Barthélémy Dias des ko mandaté woon wala gars yi exclu ñu woon pour dialogue bi sax ñuy parce que boo xoolee Barthélemy Dias moom nañ yabaloon parce que audience am boobu mu wax ah, ah c'est parce que da doon waxal ay nit ñi doon waxal ñoom euh, Khalifa Sall la ak euh, ak Ousmane Sonko jàpp ci li ma jàpp ñoom ñaar la seq loolu ay wax pour mu dox diggante bi ak yooyu boo gisee sax ci waxam day mel ñooñu dañ ko bëggoon a dugal mu woon na leen yéen ñi kat. lii ma jot a wax xam ngeen ko parce que ba may dem woo naa leen ba may génn woo naa leen la ma fa wax paas naa leen fa téléphone sax kon gars yi nag xamal ne sooy woon nañ ci waxtaan xëy kay lii bëgguñu woon peut être am ñu ko yëg ba ne ah kon gars yi ñu ngi doon négocier parce que dialogue bi il faut nit ñi dem wuyu parce que sinon coalition Yewwi Askan Wi ñoom tamit buñ demul dafa am leader yu fa ne minimum yoo xam ne si ne ku mel ne Khalifa Sall nekk ancien maire Dakar bu leen fàttali ne li ko teewoon nekk am euh, nekk candidat Euh, condamnation bi ñu ko defoon ci affaire maire Dakar kees d'avance bi te loolu galgal ba ba léegi dindeekuwul est bu demee ci négociation la naa dindeeku pour man mën naa dindeeku aussi parce que tout est possible en politique donc le jamais n'existe pas en politique donc d'où l'intérêt ñoom ñu euh, foofu nekk na point de discours boo xam ne Ousmane Sonko moom nee na désobéissance civile la def te désobéissance civile baaxul parce que su ko defee na xañ ñoo xam ne dañuy ànd ak moom te aussi il faut ñu am candidat aussi il faut ñu am d' accord lé beneen laaj euh, yow ban commentaire ngay def si la fait que Ousmane Sonko nee na dootul wuy ji yoon muy ci Mame mbay ñaa affaire Adji Sarr moom daal fas yéeneetul wuy ji yoon naka nga gisee mbir mi. xam nga loolu man musuma d' accord ci posture Ousmane Sonko par rapport force de défense et sécurité yi ay généraux yi par rapport euh, ñi muy parce que ñooñu franchement. c'est des fonctionnaires des hauts gradés de l'armée de l'état du Sénégal ñooñu tey ñun suñu amee jàmm tey ñoo ma tax bala ñuy wax ay booy yi sànni xeer tey Sénégal bu jaaxle woon sous région bi mu am trouble bala ñuy wax booy yi sànni xeer duñ ko réglé force de défense et de sécurité yi ñooy xalaat pour régler loolu kon ñooñu booy wax ak ñoom sax dafa am ñoo war a waxee ñoom am na wax bu bu mu dalal mukk nga koy wax beneen bi nag aussi mooy dafa war a wuyu ji parce que moom war na xalaat wuyu ji parce que non seulement pour fekkal boppam d'autant plus que ni nga defuma dara kay il est mieux placé pour war na defuma dara beneen bi aussi mooy ëllëg moom dafa war a dafa bëgg nekk président wala mu bëgg ay nit ñu nekk président mais ëllëg bu faloo bu leen fàtte ne généraux yi ñoo fi nekk c'est des fonctionnaires de l'État bu leen fàtte ne aussi magistrats yooyu ñoo fi ne ñoom ñu yàtte fii tey ñoo yàttewaat suba bu xëy def du Macky moo koy fal de dafa am fu am expérience am ak eh, ak ak lu yàgg ci administration bi ay ay quinze ans de carrière vingt ans de carrière di ay magistrat second ay haut grade de l'armée ay généraux ak ay capitaine ak ay colonel donc ñooñu boo faloo tamit dañ fiy nekk mënu leen fekkee nekk est-ce que kon la nga waxoon doo ko dindi kon loolu mooy indi parfois politiciens yi di wax day dara bu néew opposition bu nee parti pouvoir bi day génn nit ñi ne moo fi waxoon nangam donc il faut qu'on fasse la part des choses parce que tamit Ousmane Sonko dafa war a dem wuy ji parce que fii convoqué nañ ay nit lu ñu sax dañuy wuy ji waxuma laa loo xam ne yow nee nga dara mais tu es mieux placé pour nga dem man sax ku def dara mu war a nëbbatu waxuma ku deful dara ku deful dara kay mu leen na yow amul lenn loo te def dem bu fekkee ne fii nga yem ak nit ki wala fii tol toll parce que des désobéissance civile soo ko waxee say booy ñoom mën nañ ne bu ëllëgee ñu convoqué leen mais moom nee na demut ñu jagee moom ñu leen convoqué ñu dem gis ngeen sax mi nga xam ne si ànd ak Macky Sall neen dafa war a dem maître Moussa Diop ànd ak Macky Sall neen dafa war a dem ñaata nit ñoo ànd ak Macky Sall Macky Sall jëloon leen génn leen ci gouvernement am ànd yoo moom am ay ne leen dafa war a dem parce que da ngaa war que buñ wax nit ñi de bu ma ñu def ma nangam te yow nee nga am nga ay argument yu na yow li nga dara mais man su fekkee defuma kay ci laay dem mbir ma du ay ay minutes moom moom ma dóor mu baax mu jeex ma dem sama Euh, dernière question ñu bari nee nañ fitna bi fi am boo moytuwul ñu ngi commencé sax di comparer Sénégal ak Côte d'Ivoire bu 2010 loo siy wax Malick Guinée ñoom seen. xam nga il faut ñu comprendre ne euh, Sénégal ak réew yooyu bokkuñu parce que Sénégal mi ngi jël indépendance mille neuf cent soixante bi mu koy jël boobu tubaab yi Fran ñoo fi nekkoon tubaab yooyu nag dañoo teel a pare suñu administration ñu ci bari ñu formé leen ci école bi créé fi ay école yoo xam ne ay école ay corps d'élite suñu armée bi aussi ñu formé leen ci école yu baax ay Saint-Cyr ak école yoo xam ne yu am doole leen ñu def ci euh, science de euh, kii ci au niveau international def ay opération de maintien de la paix à travers euh, organi organisation sous régionale ak internationale yu mel ne ONU wante fa ak xelante am fa ay raay yu baax comme nag ñun Sénégal suñ trajectoire politique suñ histoire suñ culture suñ religion bokkuñu ko réew yooyu donc xam na ne réew yooyu aussi ñu entretenir parce que bu fàtte ne euh, euh, Sénégal bi amoon na fi les accords de défense Sénégal bi Sénégal ak opération Fodé Kaba un Fodé Kaba deux Sénégal ñoo ko mëne woon bu fàtte ne AKT amoon Toumani Touré bi mu fi amee problème au Mali opération Sénégal ñu def opération dem extirper ko indi ko Sénégal comme Sénégal. nit ñi li ñuy li ñuy jaawale mooy expertise bi nga am bi am ak xam-xam bi am ak kii teewul na coow mën na koo coow il ko am ci réew surtout nag période préélectorale bu amee il faut contrôle yi commencé di am parce que kenn ku ne da ngay tiit sa morom wala am loo ya yaakaar wala nga am ful la faagaagal donc li am ci réew yooyu mënta am. fii parce que Sénégal tamit préparé na boppam ba nga xam ne suñu région bi li naan G5 Sahel bi Sénégal du membre waaye participé na autour euh, de de un milliard ba pare teewul Sénégal mi ngi mi ngi topp ay stratégie yu ñuy xool ba xam terrorisme beeg yooyu ay problème yu am ci sous région bi ñu ngi koy gën a xeexe ñu ngi ci def ay ay ay ay ay ay liggéey yu mucc ayib ñu xamal ni force de défense et de sécurité aussi am nañ expertise boo xam ne manifestation bu amee. peut-être que du ma négliger benn nit bu génn àdduna waaye boo demee ci yeneen réew yu ñu ëpp doole sax ëpp ñu ay moyens yooyu Sénégal ñu ngi ñu ngi ñu force de défense et sécurité yi di comprendre population bi ak professionnalisme bi ñu ci am yeneen réew yi amuñu ko parce que loolu bu fa amee da ngay dégg ay centaine de centaine benn ci benn jour donc li am ci réew yooyu xalaatuma sax mu am ci Sénégal parce que Sénégal aussi nous avons une une armée républicaine boo xam ne ils ont été formés dans les bonnes écoles donc beaucoup ñu trajectoire politique historique culture société lu bari daal am na loo xam ne si Sénégal yi tamit lu ñuy mer mer mer tamit danañ toog ba mu yàgg ñu xoolaat seen bopp. am na loo xam ne si ci sa musulman symbiose bi nga merci beaucoup Abdou Khadre Ndiaye maa ngi lay remercier bu baax a baax. maa ngi lay remercier man may fàttali ne Abdou Khadre Ndiaye expert nga ak tamit en relation internationale. en relation internationale.